man Bagana Asmon TV. wa mbégte la ak contentement rek ñu leen di defal tay émission Asmon Sport ñukoy koy fi ci stade Ibrahima Boy. comme ni ñu leen koy waxé rek bayiwuñu Ligue 1 Ligue 2 Ligue amateur nak ñi ngi tay ci division régionale bi diggante euh, Sonam ak euh, Bisport muy équipe bi nga xamni tay Bisport muy muy jé ci euh, Sahel Sahel FC deuxième heure bi muy xandalu ak jiafas. ñu am ci mbégte rek di leen ko defal chaque jour rek TV 100 football local bayiwuñu dara li ñu leen koy defal rek moy résumé réaction ak ay commentaires ndaanaan bi dama koy bàyyi ak mom rek mu defalan len résumé ñaari match yëpp. waaw comme niñ koy waxee rek euh, chaque jour moy résumé commentaire réaction ñi ngi ci mi-temps wu match euh, Xandaalu ak Ziafas euh, mu nek match bu fermé wu tay ji ma ngi le grand consultant Abdoulaye ma ngi lay ziar waaw As ñu ngi delloo ziar bu baax. waaw di la wax ni rek ban jàngat ngay def ci premier mi-temps bi. waaw di am mbégte contentement di jël question yi bon en fait premier mi-temps bi boo xoolee. Mhm. bu ñu joué boo xoolee Xandaalu moo dominé dans le comportement du jeu. Mhm. en jouant sur la moitié de terrain déjà face. Mhm. mais par manque d'efficacité ils n'ont pas pu concrétiser occasion yi nga xamante ni créé ko. donc euh, équipe bu face bien vrai que ni xaw nañu wàññeeku parce que am na ay joueurs yu ñu génne. mais boo xoolee sur le plan du jeu c'est l'ASC Xandalu qui est en train de faire le jeu. mais ne parvient pas à concrétiser des occasions bon Jafas ci Ben ñaari sortie génn il a défense mais je pense que en attaque ont euh, am toute présence donc ce qui fait que donc euh, poser trop trop trop la défense adverse des problèmes Bon, le gardien mooy Doudou il après moi, apparemment y a que deux trois sorties dangereuses yi donc bon, xoolee sax lu mu donc c'est Laïché Khandal qui est en train de faire le jeu de jouer sur les côtés développés mais par manque d'efficacité ils n'ont pas pu concrétiser l'occasion yi nga kontaan nañ ci yow. merci As contentement ci yow. maa ngi lay delloo ziar à sama way nga vraiment di kontaan ci liggéey ci sa liggéey bi quoi. dëgg la dëgg la merci mais gis nañ ben première mi-temps bu fermé wu ci ñaari équipe tay ban jangat ngay def ci première mi-temps bi. non effectivement c'est une première mi-temps bo xamné mhm. xam nga fu ñu toll nii ci pool bi. yaatal mhm. da calcul yi dañu bari mhm. té ñun dañu joggé ci une sévère défaite 4 0 bo xamné vraiment. il fallait que ñu dawal d'abord la prudence. pour ñu mëna xam exactement li ñu surtout que xandalu équipe bu mag la. donc équipe bo xamné boy football ak mom dañ ko war respecté. donc ci côté Bobo, l'Olo moo tax loolu certainement indi certainement moment donné ça jeu bi dafa haché mais il dit 0-0. mais il y a quand même deuxième mi-temps peut-être qu'il n'a ouvert que ça. parce que chaque équipe là défenseur, là, ay Si Si dañu nekk ci pour le bon vraiment euh, même le premier deux points là, nous rawee. Et pourtant on est cinquième. donc ça c'est une poule le bon ramener. Ça, ne. saa victoire. dem nga boo saay boo amee defet gars yi fekkaat la foofu raw la donc dafa am dafa laaj calcul dafa laaj prudence boo mënul gagné sax au moins nga am un point nga mën a xalaat leneen malheureusement li may joocu ci pôle bi aussi y a des équipes yoo xam ne joué tenu le a waaw waaw xam ne toog nañu ñuy cinq points sept points mënatuñu dem dara def dara elles sont en train de forcer le jeu. C'est vraiment lourd. dafa faire quoi. le quoi. Il y da ngay def qui nga laaj leen moo am ay joueurs ont entrer. ne tout. donc il faut que la fédération la ligue la relate exactement. la euh, euh, euh, réaffiliation de certaines équipes Certainement, il certainement benn nit moo gérer te à long terme ou à moyen terme

munoo jouer à deux à l'heure nga bëgg a gagner équipe bi il faut nga accélérer jeu bi yëg si kawam ñoom dañuy taxaw. ñoom dañuy ñëw taxaw. donc ñun il faut que ñu bouger il faut que ñu mobile. pour ñu mën leen surprendre. ah donc loolu moo manqué si suñu équipe on joue le ballon mais dafa des efficacité bi devant pour avancer si kanam loolu moo des te incha allah xam naa dina ñëw parce que ñun loolu lañ doon liggéey waaw. d'accord merci. merci merci kontaan na si yow rek euh, match xandaalu bi ak GA si match nii la mujjee 0-0 ñi ngay capitaine GA Fass Mohamed Aydara ñu ñu ngi lay delloo ziar sëñ di nga wax ni rek match nii la mujjee. waaw gis nga match bi moom nii la mënoon demee quoi parce que xamoon nañ ne on s'attendait pas match facile quoi moo tax. Ah. match bu métti lañ doon xaar. Mhm. moo tax parce que xandaalu sont très ak actuellement course bi dafa xat quoi fallait pas que ñu perte quoi moo tax dañ ne bu méttee waaw parce que dañu gis nag am nañ ay joueurs yu ñu doon tàmm gis ñuy jouer mais lan mooy problème bi ba gisuñu équipe bi tey dañu gis mu xaw a ay junior waaw c'est que xam loolu comme cadre technique bi laay bàyyi quoi ñoom ñoo xam quoi man ba ma ne garaaw quoi dañ song match bi rek football football la quoi c'est ça quoi d'accord merci d'accord Abdoulaye alors ñu ngi gis nañ match bi match nul la mujjee match boo xam ne ku nekk 3 points la soxla woon waaw 點解？ avance quoi raw sa morom wala mhm. tey match bi mënu woon yomb quoi mhm. parce que ñoom boo xoolee ñoom benn point lañ ñu rawee mhm. comprendre nga benn point lañ rawee wala tey ñu am ñoo am match nul mais dañuy maintien rek xam ne ba léegi ñu ngi si course bi quoi waaw a a góorgóorlu rek d'accord kontaan nañ woon euh, ci division régionale bi muy euh, ci diggante xandaalu la ak euh, Euh, ak Gia Fass mu nekkoon tamit bi sport ak Sonam gis ngeen match bi moo tax rek comme ni leen waxee chaque jour rek ci Asmoon TV defuñu lu dul rek di fexe rek sunu football bi jëm kanam dañ leen di jox dig daje rek ci beneen émission Asmoon Sport. <laughs> top. asalaamaaleykum waa Sénégal yéen a ngi nekkaat avec euh, the only and one El Hadji Diouf in the leen nag Bantamba foot avec Hey, comment fait de Guenac tous les jours avec Asmamoun Bantamba Foot.